Euh, mu doon xibaar bu tiis bu dal ci euh, askanu Sénégal rawatina yow mi nga xam ne tam danga nga fay liggéey xam naa sax yëgoo woon xibaar bi euh, mu Momy Seck mi nga xam ni rek dafa daal di wuyu ji boromam lan ngay wax ci boobule xibaar. waaw Momy bi moom day sama xarit. moom sama xarit la ba ñu nekkee ca télé jëkk ba. Mhm. lañu lañu la ñu amante woon xarit mm-hmm. ba ba ba bis yàlla tey bii mm-hmm. maa ngi bañ sax ba bi ma feebaree noonu mm-hmm. ba wér ñëw ne damay commencé liggéey daf ne ma doo commencé liggéey di defar plateau bu bees ma ne ko waaw bàyyil ma liggéey léegi ngeen di leen ñu teg ko fay ñu ñuy defaraale plateau bees mu ne papa baal ma rek nga bàyyi noonu rek parce que plateau bees moom il faut nga am ko mm-hmm. mu defaral ma plateau bees mooy bii nga xam ne ci laay ci laay liggéey mm-hmm. waaw loolu doole ñu ne ñu ne grand cœur ñu ne déedéet papa bàyyi grand cœur ñu wutal la plateau bees wutal ma plateau bees mm-hmm. waaw te loolu lépp macha allah moom mi daal dafa baax a baax a baax maman béykat yi. waaw moom mi baax na lool. Mhm. am na yëg lool. Mhm. am na it ci nit itam moom daal ay mbiram kenn xamul nu mu demee noonu. Mhm. man nag yëgu ma woon ne dafa dafa dafa dafa dafa dellu ci gannaaw bu boromam. waaw yëgu ma ko woon. bi ma ko yëgee nag laa ne ah waaw loolu kay loolu kay loolu mënta nekk xanaa. wallaay après laa la laaj nga ne ma ah kay mën naa nekk. waaw waaye daal ku baax la. ku yaatu la. ku yëg nit la mm-hmm. bëgg mm-hmm. bëgg ku bëgg ku bëgg ku bëgg la ñuy liggéey ci bugaan mm-hmm. ah, yàlla bëgg nga nga nekk nga nekk seen TV gën nga koo xam nga xam ni nekkuñu fa yan relation la amoon ak emploi yi nga xam ne ñoo nekk foofee ci seen TV. relation moom rafet na. Ah, maa ngi ku benn bés mu togg ndogu. Mm-hmm. indil leen ko ci ci ci télé bi. Mm-hmm. jox leen ko. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu gërëm. waaw ci loolu ci ci ñëw na ñëw na jigéen di koy def. waaye dafa togg ndogu indi ko ci rajo bi eh, eh, ci télé bi. ñoom ñëpp ci la ndogu. waaw wallaay. ah loolu moom relation bu rafet la amoon na jàmm que ñu fay liggéey ñëpp ñëpp jàmm ñëpp la amal jàmm. waaw am na jàmm ñëpp. yaatu na euh, sawar na yëg na nit am na am na am na ci suba xam naa lii la xamoon tax daal mu mel mu mel ni mu mel rek mhm. hmm. euh, lan lan nga ñu mën a wax ci borom këram ak dig relation bi ñu amoon borom këram dugg ci politique euh, coow li bëri ci kii nan la ko doon nan nga ko gis ni moom la ko doon gérer moom moom yi waaw xam nga jigéen ju baax moo mën a gérer loolu yéen ñu baax moo mën a gérer sa jëkkër ne ci politique bi léeg-léeg ñu wax ko lii léeg-léeg wax ko laa waaye yow nga ne pacte rek waaw moom li muy wax ak li muy wax bugaan la koy waxal waaw defal lii jaaral fii moytu lii defal lii rek ndeysaan noonu la nekkee moom waaw defal lii defal lii defal lii moytu lii defal lii moytu lii loolu rek la nekkee moom mm-hmm. ba ba yàlla moom ko tey loolu loolu moom ku ne xam na ko ci rafetaay gu mu mu rafet macha allah. naam yëgoo woon tey euh, génnuk àdduna moom moom yi ndax yëgoon nga tawatam ji ko tëraloon. waaw ah, yëgoon naa tawatam tawatam moom yëg naa ko ndax jëkkëram wax na ma ko. Mhm. waaw yëg naa na ma ko vraiment yëg naa bu baax a baax a baax a baax. waaye nag xam nga génnaat man man génnaat man man man du ma génn. Mhm. waaw ci euh, ci du ma du ma def dara. Mhm. damay tëj rek euh, sama téléphone man téléphone yi ma yor mooy mooy yooyu capp mm-hmm. capp yooyu. yi ma yor man. mooy capp capp yooyu rek yooyu laa yor. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw du ma yëg dara du ma yëg dara wax dëgg yàlla. waaye daal ku baax daa dem na ku yaatu dem na ku am njëriñ dem na. ku bëgg ku bëgg ñu liggéey ci tere bi dem na ku bëgg jëkkëram dem na koo xam ne day gérer jëkkëram euh, ci ci façon bu ne. la koy gérer. waaw réeré ci façon bu mhm. waaw te heure bu mu tëdd si baax na heure bu mu ñëw baax na heure bu mu ko gis baax na waaw xanaa foo nekkoon ah ba nga di ba jàmm la rek loolu rek lay wax ak moom eh, gannaaw gannaaw génnuk àdduna way juróom di coon sekk moom itam tey jii mu nekkoon taaw ci famille bi génn àdduna loolu lan na mën a def ci famille bi papa. non famille bu ñu dëgëree rek du ñu def dara bu ñu dëgëree du ñu def dara parce coon tekk dem na deful deful lu rëy ci famille bi mm-hmm. bu moom i demee du mën def lu rëy ci famille bi mm-hmm. ah dañuy gëm yàlla rek xam ne yàlla leen fi indi woon yàllaa leen jëlaat loolu rek la mm-hmm. dañuy gëm ne yàlla fi indi coon moo ko def li mu ko def moo ko jëlaat moo fi indi woon moo ko jëlaat loolu yëpp loolu dañ koy xam rek waaw ah, soo ko xamee nag dangay ngay noppalu boo ko xamul da ngay diw diw rek nekk benn liggéey. Mhm. waaw waaw nga xam ne diw diw doon problème. Mhm. waaye bu fekkee ne dañ ko bëgg a def problème ah coon dem na moomu dem na nangam nangam ma bëgg ko def problème dañuy xam ne yàlla leen bindoon. Mhm. yàllaa leen jëlaat yàllaa leen bindoon moo leen jëlaat waaw. te am na ñu leen gën a métti li fuuf fuuf ñoo xam ne amuñ dara ñu ñu am nga dem waaw kon nag ñoom nañ sant yàlla rek ah, nañ sant yàlla bu baax a baax gën a jàppante fu ni jiitu kan war a topp ci moom topp ci kañ war a topp topp ci. ñu mhm. toppante rek góorgóorlu. waaw loolu moom mhm. wax euh, njaboot gi ne moom la fi bàyyi. gi li ma leen wax mooy loolu rek ñu ànd nekk benn euh, ñoom euh, ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nekk benn. te mhm. mag na jiitu. ci ci topp topp ci ci topp topp ci kaw yaay. waaw bu ko defee àndandoo nekk benn liggéey. Mm-hmm. waaw parce que Bougane Bougane mooy seen mooy seen papa. waaw mm-hmm. ah, Bougane mooy seen papa. Mm-hmm. ndax seen papa dem na ñu def ko papa ah, moom i dem na mooy seen papa rek waaw. mu xam ne du seen goro seen bàyyi la. mu def ko bàyyi rek mu jeex su ko defee mu uuf leen. mu uufu mu jeex waaye nag koo bëgg uuf ci uuful du sotti waaye da nga leen di uuf ñu uufu. nga nga nga nga jeex. ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal di la jaale itam ki nga xam ne moom la ñu bokk. waaw kii ñun itam ñu ngi koy jaale baax a baax a baax di ko jaale Sénégal yëpp. di ko jaale bugaan baax a baax a baax di ko jaale mboolem ku bokk ak moom ñu ngi la koy jaale. Mm-hmm. incha allahu taala yal na ko yàlla jéggal ci yërëm ko. yal na ko yàlla jéggal ci ko yal na ko yàlla jéggal ci ko. yal na ko yàlla jéggal ci yërëm del déglu del xool.